Hallelujah. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بك جريدي بك طالبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيو نيو تاي زيارة مبولم كوي سيطان أكا دقلو سين تلفزيون سين تي في دلين نيو فيك جمعي توبا عندكو دائرة مقدمة القدمة للمسجد القديم الطوباوي ñëw rek ngir ab leeral bu gàtt ci liggéey bi nga xam ni daayira bi moom lay taxawee ci biir jumaa ji ak ci pénc mi ak ci baqiya ak ci teertu gani sëñ tubaay yi dalal leen di bi nga xam ni nii moom la ñu xalif général murit dénk ñu koy def suñu wàll ci liggéey ak jàppale ak wuy si gi suñ wuy suñ Tuubaa ci wooteem bii muy woote ci Tuubaa daayira bii nag di moo xalamatul xidma mu ngi judd mars 1994 ci ay waxtaani mbokki taalibe ñu doon waxtaane ngir ngir ñuy def ba jumaa ji di jumaay Tuubaa ji ni meloon bu njëkk ñu jéem ba jéem ko dëppale ak ni borom bëgg mu mel ko tax daayira bi jóg dem ci Maolana Cheikh Salih Mbacké radiyallahu anhu wax ci ak mom mu nangul ñuko dal daal jox ndigalul toppatoo to ji ci niko sunna waxe te moy diko sal diko xeyal lu neex dal tapi sans pire yi taxaw ci bunti takale goor ñi ak jigen ñi tay nak tere lepp lo xamni da ko tere te lolu moy di tax lay bi jox jumaa ji nag ñi ñi ba ku xam histoire am jaar na ci ay barab yu méttee metti yu tar yo ak fit la ay kilifa am rek ba tax juma ci taxaw ndax ñepp xam na ne seigne touba lu mu la lu mu doon ñaan la lu mu defoon tamit ci xaram la ba yalla su may ko ko mu ko ci bopam 26 mu amé ay gàllankoor mu genn aduna 27 ci sahir domam jël. liggéey boobu def ci ay jéego yu am solo te mooy xam na ni xëy na baroon na ay gàllankoor ngir mu taxaw ndaxte liñ teg ci kanam ci ay gàllankoor bari na lool ba tudd ci benn rek muy raay bi rek waaye Sëñ Moustapha ànd ak njaboot gi ci pësteef ci fit ci jom ci fulla ba dékku mbooleem pakk yooyu yëpp mu moytu ko ba taxawal jumaa ji ci ndigalul waajuram mu ko santaane woon te loolu moo newoon pas fa mu ànd ko raxam yëpp kon juma na bu taxawee dafa am lu mu laaj te mooy dëppale ko nag ak njàng si na dem juma dañ fi aaye sax réer réer le lu réer da nga yéene ko sama nangam dafa réer sax ko aaj juma ndegam dañoo aaye jumaa ku fa nekk dugg di lekk laaj sax sala sama waxoon ne ku lekk ci garab gii bul jege sama juma ji te loolu mooy laaj ndax akatam rek kon jaadu na jumaa ju toll nii nekk dëkk bu tëdd nii ñu dénk ko ay mit wala nga koon los koon ba mu ak ndigal li te mooy njëkk mooy jumaa ji li ko wër ak biir ñoo bokk àtte kon lépp loo xam ne nii am njaay la danga ko fi tere ak nu njaay njaayee njaay nag ni ku ñi xam ne daa bari ay façon daa njaay moo xam ne dangay da ŋàbbu baa nga lal baa sax mu nekk mbubb moo sol misaal boo solol mbubb moo xam ne nii kuy mbooloo mi jaay la ñoo koy def nga yor ko ci biir jumaa ji loolu njaay fii moo tax dañuy aay lépp lu xet ak publicité wala njaay ci jumaa ji ak lu ko wër bu dee tamit dangay jaay njaay mu wutewu nag ak sunna njaay moo xam ne dafa xaraam lu mel ne ay xar fa wala ay béjjéen wala mel na tamit tasaare ko tamit dañ ko aay jumaa ji ak li wër jumaa ji lépp aay tamit jaxasoo bu am góor ak jigéen te jumaa ji laajul loolu moo tax dañuy bëgg jotaay bu ne ñu séparé fa ñay góor séparé fa ñay jigéen bu dee ñiy sàkku ndimbal ñu ne képp koo xam ne da nga amee gàllankoor bay sàkku ndimbal nanga nga wàcc tëli bi dem ca trottoir bu mujj ba toog fa te bul dugg ci biir jumaa ji di def lool ndax loolu la ko fay ay ma màjjaal boo defee ñi nga xam ne ñu am kàttan nag ku am kàttan nag moom danoo bëgg moom mu solo li penc mi ndax kooku amul gàllankooru bay màjjaal bu dee ñi nga xam ne ñooy géew di aka wah, a wax ay kat lol tamit dan ko téré ci jumaa ji ak li wër jumaa ji bu dal yëm ci walu journaliste yi ñu fit la am lo xamni dan ci dañ da leen ko may ci liggéey bi ndax magal xawa bari ay soxla ci jumaaji ji ko soxla lepp mo tax da naan kep ko xam nga naan jumaaji ji bëgg bëgg def ben interview na nga jaar ci bureau bi wax ak fa joxal ay laaj nga tontu ko jox la benn këyit bu wan ne nangul nan la ngay def mooy tax boo dee ndaw yi ci jumaa ji bu la laajee boo ko wënewut dara la wax ne amoon ndigalu def bu dee ñi yor ay photographie di di photo di photo kataare ñu ñu matériel ko photo boobu ànd ak góor ak jigéen wala feeta bu am jaxasoo ak misaal bu dee ñi nga xam ne ñoo yor nag ñoo yor nag ay téléphone di def ay boo dañ ne vidéo boo xam ne dafa laal am njàng mu sur mu jigéen nag laal sama muy jigéen nag wala ay taalif wala ay wax mel noonu ndax ma ànd ak moom nan ko matériel bi ñëw ndax loolu day nuru ab clip te loolu suñ saali lu ko ay woon ci ak dundam nan lii kat nan ko matériel ji bu la ci col gi moom sarti mooy col gi aay woon fii lu li aay dina aaya te mooy dana bëgg kuy kuy sol jum ku ñëw jumaa ji nga waaj ndax jumaa boo fi ñëw da ngaa war a sañsee sala borom bi sax moo ne na ngeen jël seen toilette bu ngeen di jëm jumaa kon boo fi ñëw war a jàkkaaru ak xaadim rasul war ngaa waaj li ci njëkk mooy bu dee jigéen mu sol yére bu dëppoo ak diine bu yaraax bu xat bu mu gàtt te ay këram bu defee mu ñëwee jaar ca sàppay jigéen ña dem ziyaara ji te baytu ko jaxasoo bi bu dee góor tamit mu sutura ay këram bu mu sol yére yoo xam ne nii dëppoot ak diine du ak taalibe te moytaniku yooyu xew léegi ci wàcc tuba yëg ndax itam wut na ak ma ak euh, taxawaayu jumaa ji ci liggéey bi bu dee nag ñi nga xam ne nii danoo ñëw nag ci jumaa ji ngir nag dallu lan la jumaa barab boo xam ne nii kuréer fi nga jëm si waaye nag fii jumaa Tuubaa dëpp nañ ci loolu waaye dañ ku fi ñëw koo xam ne nii da ñëw pour toog rek bëgg a nelaw loolu moom jumaa ji laaju loolu boo ñëwee daal bu dallu na yor sa kurus wala sa téere xasida wala sa aan wala ngay sikka baa ngay julli julli woo nag sikkaroo defoo lu tëdd nelaw nag loolu na nga koy moytandiku jumaa ji li ko wër bu ko defee ñi xam ne tamit danañu jumaa ji di di di di luubal ñu xam ne loolu moom man jeex na jumaa ji ñiy luubal baa ñuy jalgati nan ko moytal la jumaa ji ak li ko war ndax jumaa ji loo fi def mu néew ak a bari ñu ngi jàkkaarloo ak moom te ku ñëw bu Tuubaa nag di siyaare si baa ngay màggal si war ngaa moytandiku nag yi nga xam ne nii bokku ci màggal gi ndax borom màggal kat daa woote màggal sant la woote wante wootewul nag am po ak caaxaan ak am gundaanaat déedéet kon ñu ngi sant ñu ngi sant baax mbooloo mi ñu xam ne loolu ñu digal ci ji ak li fi tere lépp islam moo ko digle yenn islam moo ko tere di jëm ci wàllu nag wàllu ziyaare yi ziyaare yi tamit dañ koo def ñaari parti looloo wut sàppe soo xam ne nii moo jëm ca moo jëm ca ca barab mag ba am sàppe si góor ak sàppe si jigéen kon duñ may benn jigéen mu jëm ci sàppe si jigéen ñi sàppe si góor ña wala benn góor jëm ci sàppe si jigéen ñi bu dee mbooloo mu ànd tamit di ziyaare ji nan xam ne lu mën ni ànd dëkk seen ba bokk gën kër ba ñëw ba jumaa ji war a siyaar nag fu ñu jaar séparé nag ci ab taxawaay ndaxte fii moom loolu moo fi def ndigal lii bu ko defee loolu boo ko defee rek wàccoo nga ak ndigal yi ci kaw nag yow miy siyaar si nag doo sol nag yëre yoo xam ne nii mu ko waxoon léegi nii daa nekk yëre góor ngay jigéen am wala ab baay laal wala ab sin saison yooyu dogub góor la du bu jigéen kon su ma ko jigéen ñi ñu ngi leen di ñaan ñu bàyyi xel seen col gi xam ne islaam dafa jox jigéen gëdd jox ko manoore ndax jigéen bu ñuy wax jigéen ki islaam lim am ci islaam dafa rëy bu dee jébbulu ju nekkub julit jigéen a ci jiitu bu dee shahid jigéen a ci jiitu jumaa ji tamit xaas bu njëkk dagale dagale jigéen a ko dénkoon kon jigéen biir jumaa ji ko war naa waaj bu baax a baax ba bu ñëwee du def loo xam ne nii day wuute ak ndigal yi bañ koy jànni bañ ko toroxal ñi yor ay drone yooyu dafa xam ci wàllu ci jël bu dee drone tamit ci jumaa ji dafa am lu ñu ci dëppoo ak euh, autorité yi mooy drone ndegam suñ charte réew da ko da ko da ko da ko da ko limité am ci aaye ko ñun ay doomi Sénégal lan la ak ndigal ndax ñu ne képp ku yor ab drone jëm si jumaa ji la gën dey pour réer ba am indi ko ci bureau bi ñu localiser ko man ko contrôler lu ko mooy nag mën naa jóg te gis ñu la gàllankoor am mu daanu wala boog mu am sikk te boobaa tamit doo mën a am foo ko jooytoo ndax ndigal li mooy lu mel noonu boo ko yoree da ngaa war a jaar ci bureau xidma bi wax ak ñoom tontu laaj yi ñu xam ne yow mii kat def nga li nga war a def wàcc nga sàtt yi mat dee jumaa ju mag dafa goudé 105 cinq 53 cinquante mo lay jox am na fenêtres am 45 ventilo am djuroom ñetti am djuroomi soro am barabu ño sëriñ Tuubaa ci ëttundam moo jox woon ndigal bis bu ne ñuy jàng juróomi kaamil tuddee waa daare kaamil barab ba léegi muy dox jumaa ji am foo xam ne nii barabu jàngukaay xam-xam la sëñ as jaxat yàlla yàlla euh, yokku kattanam moo fa nekk yokku dooleem yokku xelam bàyyi ko ba moo fa nekk di jàngale xam-xam sonte ba léegi nii musta tare benn yoon am barab boo xam ne tamit lañ tuddee barabu jullikaay bi loolu lañ wax ne

jàkkaarloo ko sëñ Dame Atta jëm ko sëñ sëñ si dël bi ma sëñ Saliou ak sëñ Saliou yokk yooyu yëpp yokk bu ne nañ ko def 45 tàpp ñoo koy ñoo koy fees tàpp yoo xam ne tàpp marocain la ah, di loo xam ne tamit mooy tax jumaa ji am taar ba mu war a defee ci wàllu jumaa ba léegi nii am na juróom juróomi soro njëkk ba fi newoon léegi juróom-ñaar la ñaari soro yi nga xam ne moo la féetee moo la féetee càmmooñ féetee benn bi ko si Dame Atta benn bi Blaat soro yooyu tamit ñu xam ne soral mem même su dol ndax jumaa yi am na ay ay ay ay def ay barab kay soro yoy ñoy ñoy ñoy joxe ndox bir juma ji te mooy mbadamam jaara fe mu servir mbolam luy kay yi xamne motax juma ji bu gisee ñaar soro yi da nga da nga jàpp ne dafa bëri mais dafa soro yi am mu ligge ci moy so dol dool lañ ci mooy boo xam ne jox juma ji ndox japp na lo ki teunk moy juma ji ay yatwayam ak fenetram ak taxwayam may sante bu baax euh, sama karima bi baax ne mom Mm, sama waay lool Babacar ak mboolem ñi nga xam ne ñooy seetaan ak déglu seen TV wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.